برهام باء وراء ألف ثم ها ميم فيض تيجان جخن نينان asarahu abadan Mawlana Cheikh Ibrahim Niass ngi sant yàlla di profitoo ci temps bii nga xamante ne li ci gën a màgg ci waxtu wi mu ne mooy nangul na yàlla rek ay daal te alhamdulilah ñun boo compté sunu dund amul benn cars bu ñu rëcc ginnaaw bi ñu joxee bàyyi loxo amul benn ces bu ñu ci rëcc buñ fàtte ne yàlla rek ay yàlla te loolu lu rëy la loo xamante ne nit utut lu ëpp loolu ci kaw suuf ndax wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduni saxaaba yonent bi déggloo ko nit ñi maanaam bind gi yàlla bind nit ñi pour ñu jaamoo ko mu a jaamoo bi xam ngi lañ ci nam kon bu ñu yàlla defalee xéewal gu mag gi gu rëy gi fu ñu toog rek war nañu sant njëkk loolu bu fekkee xam nañ dayob li ñu am moo tax waxtu wu jot ngay gis taalibe bàyyi fu ñu daje rek ñoom ñëpp danañu yëkkati jërëjëfee bàyyi yëkkatiwuñ ko pour ne dañ koy wax rek ndax ngéwéle comme ni ko nit ñi di waxee déedéet dañ koy wax ndax dégonfleur ci sunu xol ñu mën a jéeguwaat yeneen pas pour gën a mën a sant dégg nga Cheikh Ibrahima si jëf ndax dégg nañu Serigne Mbaye Niass mu ne daan na wax naan bàyyi fi mu ne nii wax doyatu ñu jëf rek ndax li bàyyi war a li ñu war a wax yëpp bàyyi wax ba pare jiituwaat nit ñi ci ci jëf ndax damay wax ne guide religieux démb rek maa ngi koy wax ci xadara bi mm-hmm. pour ma ubbee mooy képp koo xamante ne jiitu na rek ci yàlla nit ñi topp maa ngi koy wax démb ci xadara bi ne bànnee xam nekkul ci di joxe ay ordre nit ñi di exécuter ñëpp naan sami naa wa ataana ñëpp naan way musi nga yaakaar ne loolooy sa bànneex ñu ne déedéet lii sa bànneex dëgg mooy lépp loo digale nga jiitu ci nit maanaam nga jiitu nit ñi ci action loolu nag lu spécial la woon ci Cheikh Ibrahima Niass moom la ko ñëpp raayoo moo taxoon magam daf ko waxoon ne dégg nga euh, su fekkee ne bëgg nga yàlla na nga gaaw suivre sëriñ himmatuhu tulhinul xaala man araada al ilaahu fatsabu indrum fal muraad mu ne li xam ci sëriñ bi mooy Sylvain Wéne itteem dafay eewaale ittee képp ku bëgg li mu bëgg. maanaam da lay excité moom Cheikh Ibrahima si lépp. ci sa nite gi yow boo jàkkaarloo bàyyi te gëmoo dara sax da gis ne nite gi nii. da lay excité taal ci nga bëgg rek sa yaram bi sa jëmm ji ndax nit ku correct nga fréquenté ko bëgg. lu baax bëgg yonent bi bëgg Cheikh Tidiane bëgg julliti yàlla yi ah demoon dem dem ba li ñi di oote ci àdduna bi naan naan patriotisme ak kaza kaza yëpp bàyyi darsa la ci joxe ci jëmmam ji kenn gënu ko woon doon patriote kenn gënu ko woon doon africain xaw ma na lañ ko waxee africanité xaw ma na lañ ko waxee ñi di oo ci der bu ñuul Cheikh Ibrahima Niass da ci taxawoo ba président yi nga xamante ne déggoo nag ñoom sax ci jamono te du ñu woon ay jullit dañuy ay président Afrique wala ci la ay leader yu mag ci Afrique bàyyi daan leen jokk pour Afrique gu ñuul gii takke loolu taxoon bàyyi doon xaritam ñoom waaye xam nañ ne utul woon ci moom dara ndax sëriñ bi utul woon daal bañ ne ko ba sëriñ bi musul commerce benn kilifa bu mag wax na ma ko mu ne ma xam nga lan moo tax bàyyi daawul commerce bugg ko ni loolu tax mu ne bu commerce yaatoo dana lëkkaloo ku warta lëkkaloo moo taxoon mu yar boppam ci lu ma am jox yàlla lu ma ñàkk ci yàlla moo tax euh, da ngay xool sëriñ bi photo ba ci yàgg rek nga amal ambition tundaat doo xool bi rek découragé moo tax bu waxee ne sama photo dafa des loolu jàngale yu bëree ngi fi ku bëgg a découragé si dundam sax boo xoolaatee baax rek mu doon dund ci jamono yu métti yooyu nga xam ne ay première guerre mondiale ak jëm deuxième guerre mondiale te jëman ci boo ko xoolee da ngay foog ne ci jamono ju neex la doon dund nga xam ne dëgg dëgg non himmatuhu tulhidul xaala man arada al ilahu fashabu in rubdal murad moo tax bàyyi gis du mag moo xamante ne dañ naan non non nañu woon xale yi ki ñoom ñàpp ki jamono tey commencé bàyyi dafa war a mag ñoo xamante ne moo gën a bees xale yi sax ci jamono yi moo tax dafa doon koo xamante ne ñu daje di wax ci moom rek àdduna daf kaa soxla teg ndax kaana xadiisu dahrihi wala yazaalu xadiisu dahrihi abadan Cheikh Ibrahima Niass dafa doonoon sujet jamono te xam naa suñu papa yi jamono teg moom xam nañ ne Cheikh Ibrahima Niass sujet jamono la woon moom bi muy dund wa kaana xadiisu dahrihi balaa moo doon ñëw Cheikh Ibrahima Niass sujet jamono la woon téeméeri at Ousmane ci moom dégg nga Abdou Qadir Jeylaani ba ci yonantu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa ñu wax ci mooy ba yonantu bi di di melal la may nafs ñu dem ba ci jamono yu mujj yi bàyyi ne ba bàyyi ah. kon dañuy delluwaat histoire di ngeen xam ne bàyyi kon yonantu bi révélé woon na kan mooy Alaaji Ibrahima mm-hmm. moo tax bu ñu ubbee jotaay faw ñu ubbee ko pour xol yi ubbi ndax xol yi bàyyi lay dundee mënuñu ñàkk a bañ a dundee Cheikh Ibrahima Niass ndax wax na ne wal qalbu abdullahi xol bi mooy jaamatu yàlla wal jismu mu ne jëmm mooy sëriñu xol am na lu ci nam mu ne war ruuxu mu ne mooy sëriñu sëriñam am na lu mu làq ci loolu naar bi dañ ne gis na ko ñu ne ko loo xam ci moom mu ne huwal qalbu mooy xol te képp ku sa xol wér sa radar bi dina détecté Alaaji Ibrahima bokkuloo ki ko gënoon jege ca baaye muy Serigne Aliou Cissé daan dëkk moom te yabu ko na ndax koo xamante ne bi nga amee soxna nga gëj tëdd moom ci lal nga oote mu gën laa gëm ba gën dem jeex lu ne mu am ku sa ginnaaw te yabu la ba génn àdduna muy Serigne Aliou Cissé loolu rek war naa tax sëriñ bi dégg nga produit fini la ko insaanu kaamil la woon moom la Cheikh Tidiane doon wax naan góor dana ñëw ci barab mbiram daj àdduna ak àllaaxira du ñu ko xam ci àdduna du ñu ko am àllaaxira war nañuy def ba dajeeg góor boobu Cheikh Tidiane joxe ñaari tur xam naa ne daal insaanu kaamil lay doon lomtaan fekk mu ne xaamilu amaana ilaahiya yëpp yi yàlla ci loxoom lañ koy teg mu ne waaye tamit abdullahi la jàmm bu sujjootal yàlla ci mbooleem meloom ñett yooyu daal xam naa ne ci turam yi lay bokk mu ne dina am yeneen tur yoo xamante ne danañ ko ko lonk ci jamono maanaam ay tasarufaat yoo xamante ne day tëll rek ñu ne waati mhm. tur yooyu nag xam nga mooy lan mooy ñi doon gént ak ñi doon xalwa daan nañ leen wax de sa lii giide di wala koy jox ci kaw suuf sa lii de di wala koy fàttali selii lii giide ci di wala koy sa lii ñu dund ba kaw suuf daje yéem googu mhm. bàyyi ko ko jox ñu ne kon tur wañ ma joxoon ci gént nga yaa ko moom keneen dugg xalwa ñu feeñu ko ñu nangam mu ne kii la kon mu jël tur wañ ko joxoon ci xalwaam kon yaa ko moom ma tax mu tëll ne kon waxuma ne man la ko ñi ma jamono ci jamono ñoo ne man la ma mujj ne man léegi man maa ngi wax man kan moo ne du moom la kooku ki ñu la ñun te nag li ci gën a neex mooy lu mu ngande ngande ngande ngande ngande xaj na fépp moom bari lu mu rëy rëy fépp la xaj lu mu foor foor foor foor ñëpp ñëpp la daan fréquenté ñëpp di ko fréquenté lu mu màgg màgg màgg ci wilaaya oyof na bëj ndaw ñi ci moom la ñuy jàngee yàlla ci moom la ñuy jàngee yéeg ñàkkare woon ci yàlla ba gën a kawe kawe kawe kawe ku dajeeg moom dooleeku nga ci moom loolu la waa ji doon wax naan kam xushifa alxijaabu liman ataahu ولو لم la منه له الخطاب كم ندب العباد بما اليه من ابيات كانت له انتباه كم احيا القلوب بعيد موت كما بالغيث قد احيا التراب naar bi daf koo xool tamit ne ñaata nit ñoo doon ut liñ daan ut ci góor yàlla yi bañ dajeek moom jot nañ ko am ñoo xamante ne dégg nañ ko te dajeek moom seen xol yi nangu ko mu tarbiya leen te gisagu leen mm. mu ne am ñoo xamante ne fekk nañ leen ba ñëpp ne ñi ñoom utatuñ yàlla bàyyi bañ dajeek moom da a doon fi ma koy tëjee mooy ndax sëriñ bi moo ma dugal ci moo ma dugal ci lii iftitaax la rek mu ne am na waajoo xamante ne Cheikh Tidiane dañ ko laaj pour yàlla yëpp dañoo mës a daje ne ut sëriñ mënut a ñàkk ba ci imam Ghazali junayti ñàpp kuy borom xam-xam rek nee nañ ut sëriñ mënut a ñàkk ci kaw suuf wul yàlla yi nag ne ba mu des nag ngay góorgóorlu ci yàlla ba dañ ko yonentu yàlla Muhammad jaxaram mu doon sa sëriñ loo soxla moom la koy laaj mais bi bàyyi ñëwee ci jamono wax jooju dafa dafa xeewee mm-hmm. ndax ñi ëppoon di ñëw ci moom ci ponkal yi yonent bi lañ doon gis ay at la jëflanteeg ñoom moo leen mujj wax ne Ibrahima laa tudd maa nga kaw am na ñoo xamante ne yonent bi ci boppam moo leen wax ne man Ibrahima laa tudd am ñoo xamante ne baatu Kaolack ci yonent bi lañ ko déggee am ñoo xam ne baatu Ibrahima Niass ci yonent bi lañ ko déggee te boobu amul benn sentiment bu leen liyee ak El Hadj Ibrahima Niass parce que xamuñ ko xamuñ Sénégal xamuñ Kaolack te doyloo woon nañ ci alquran ak hadis ak tariqa tijaan bi ñu kon kooku sujet jamono la woon avant moo ñëw mhm. ba ci Cheikh Omar Fouti bi mu demee euh, Nigéria ka mu dajaloon Ousmane Lam Fouti gisante nañ mm. nee na ko buur yi tëju ci kaw suuf nii ci suñu dëkk bii waa jooju bu ñëwee fii ci kaw suuf buur yëpp dina jël peelu ci moom mm. ba ci yàgg mu ne ko dinañ ñëw ñëw bu njëkk fii ci dëkk bi duñ ko miin loolu visite privée waaye bu fi duggaatee ci la ko ñëpp di repéeru mm. te noonu la amee te téeméeri at wax jooju balaa Alaaji Ibrahima Niass di ñëw ci kaw suuf jëpp kon nga gis ne kon sujet jamono la woon avant bi mu fi nekkee moom siise jamono moom El Hadj Ibrahima Niass. Mm. ñëpp doon wax naan ayna na wa maa barhaamu. bi mu fi jógee tamit ba tey xale yëpp a ngi naan ayna barhaamu wa maa barhaamu. Mm. hatta fanaw fi xubbihi wa mm. waaye mag ñëpp tamit ñu ngi koy wax. kon kooku bu fekkee ne daf ñuy dajale dëgg-dëgg war nañoo daje ndax moom. dëgg-dëgg war nañoo daje ndax moom. ñu daje am xéwal bu rëy goo ne. ña ko bëggoon daan nekk ak ñoom daan dund ak ñoom di ko xëyal ba mu ne jërëjëf ñu am ko ci tant bi toog ak ñun kon tant bi kawe na lool moo tax ñu ne maa sawadal abtaara illa rijalaha wa illa la fadla li turbatin ala turba suuf bu barkee rek ña ci suuf bala waaye du quartier du quartier bu doon laal la yàlla day wax yonent yi ak ma ak ak wàllu yàlla yi ne leen dee leen uti ay résidence place ak place ak ndax li ngeen di def mu am fayda non kon suuf fa barab yi amul solo ndax il faut pour manipuler l'objet te doomu aadama mooy juger ci kaw nu bi mooy juger ci kaw nu bi lu dul doomu adama rek objet buy xaar doomu aadama mu manipuler mhm. موتان شيخ تجاري لا جانغال لو ياي اينو رحمه رباني ياي اينو الحق التي تتجلى منها قرص الحقائق ياي اين المعارف الاقوم ياي صاحب الحق رباني كوم نيما كو واخي لو بروبريتي دو لا فيريتي ديفين يوم لا اسكا خام نكو ياي ياي ثلاثه الحق بالحق تلد الازم اسكا خام نكو سوكو خامي نا تيك نا مونا كون افادتك منك اليك كون ليب لولاي جيرينتي رك تي لا نيك ndax am nga xereñ mën ko génne jëriñuwaat ko ndax am nga xereñu mën kaa jot jën ko keneen xereñ googu nag mooy alxikmatu allah mooy mooy li ma bëgg a wax xereñ googu mooy alxikmatu bi nga xamante ne moom mooy mooy kii tay bi terme bi mooy alxikmatu dafa garaaw xikma dafa garaaw lu garaaw la te xikma ñëpp a ko moom ñëpp am nañ xikma même ku jubadi sax yàlla may na ko xikma même bandi bi gën a garaw ci bandi gi sax am na xikma moo tax nag kon tey jotaay bii tey su fekkee ne am nañ ci thème bu yem nii te xaju fi de xaju fi damaa liir liir ba ci yàgg démb sax bopp bi di métti ma tëj ma ne ah ma ne xaaral ma daal xaw ma lu ma yor suba naa ko tëj rek ba suba waaw. ma fàttali ko ak xadis yoo xamante ne mën na ma dimbali ma wax ci waaye damaa liir ba gis ne xikma mooy lépp nekk tam nga gis ne kon ñun tey. su sunu papa yi nga xamante ne dégg nga couvrir woon nañ Alaaji Ibrahima Niass ñii di seen i doom ak seen i ñoom am xikma taxoon ne wuyu Cheikh Ibrahima ndax choses yi jaxasoo woon na woon yi jaxasoo jëm yi wuri mais bu ñu xamee Alaaji Ibrahima Niass seen jamono rek xikma moo leen ko may xikma xikma moo leen ko may moo tax nag ñii ñu toggalee tey ba ci ki xees sos jotaay bii du lu bees si moom du lu raar si moom te duñu ne lu tax mu koy def ndax Cheikh Ibrahima Niass dafa waxoon ne laa laa yafraxu bikum muy seen bàyyi muy góor gi alaaji Keba Caam dégg nga waman lifa waman lafa lifahum comme ñi nga xamante ne tofu woon nañ ci moom ak ñi nga xamante ne féete woon nañ leen ndeyjoor ak càmmoñ wër alaaji Ibrahima Niass bàyyi la ci jox darsu bu rëy pour mag ñi war kaa xam xale yi tey ndax Baye dafa wax ne Serigne Aliou Cissé la bind lettre ne ko laa yafraxu bikum kenn du kontaan ci yéen Alaaji Keeba Caam ci la bokk ndax xidmaal na Cheikh Ibrahima ba Baye bu daan tukki daan dox ay mbir yu privé ci moom ay mbir yu secret ci moom daan na jël seen Baye ne ko kaay dawal la hmm. kon lu garaaw la te loolu ñëpp xam nañ ko léegoo léegi nga am chauffeur bu nekk waaye da nga naan diw laa gën a wóolu ñoo xam ne ci foo ma jëm wala bas bàyyi ma daw la xew ko kon kooku doonu tey bu meloon noonu ci El Hadj ni bàyyi yem ak li ko yàlla dénk ci kaw ma bi ni mu yem ku mu óolu rek kooku du woon hasard mm. kooku du woon nit ku ndaw mm. kooku du woon nit ku ndaw nga xamante ne Cheikh Tidiane moo wax ne kan mooy El Hadj Ibrahima Niass ko mooy kan mu ne lépp lu baxee koo ci yàlla jëm ci mbindeef bi ci loxo bi lay jaar. kenn du ko ëpp information ci kaw bi. mu ne jëm yu ci biir géej gi sax da koy déglu moom xam na soxlaam. loolu nee na jëm ci biir géej gi sax da xam mu xam ko. moo tax Ibou Diouf daan ko woy naan ko bi ngay wàcc ci alam bi gis naa nga ràngoo sa mantoom Souleymane xam nga mantoom Souleymane mooy lan mooy maqaama yonentu yàlla Souleymane mi mu yoroon. nga xamante ne ba ci melentaan yi buñ jotee moo leen di àtte. loolu la doon junj. loolu nag li ma koy tëjee mooy ku xam ñëpp moom lañuy jox liy jëm ci ñëpp. ku xam ñëpp. am xolu boo xamante ne doo bañ kenn. yërëm ñëpp moom lañ lay jox luy jëm ci ñëpp. moo tax nag kon suñ sant bii li fi teew nañu xam lu mu nañu xam kii def jotaay bi kan la. du du du ko du ko jox ri rek daf ko wirasa la daf ko wara def ndenkaane la luñu ko utul la de leen fen ci man ba pencam yàlla loolu leen bàyyi daan wax kon buñ toogee ba bu bokk ci moom tant lu ndaw boole kaay alaaj ibrahima loolu ndenkaane la du moom xaal buñ ko tëbb la moo tax la seen bàyyi bàyyi daan wax naan laa yafraxu bu kenn du kontaan ci yéen sama benn taalibi du kontaan ci yéen ولا يكرمكم ولا جبت لين ترل إلا من سبقت له سعادة في سابق الأزل لدن كو قمت نتحم أزل له كون فاو مترلين كون مرد كون في المتحم مونة كلين تخول كلين فنكول مغلولين يغولين كون دانو تيين تيلين ما نفعل لفت تها هذه ورد تي أزل مونة البرلين بنيه تي أبا بلوم عندك عندك نيوم دانا دفلين كو جنوا مملا إبو جوف دون وقنام mbaal bi feeñ nag xaw ma na directeur jën waaye lu léppay teeree ndàngaan ndàngaan mooy tefes ko xam nga lu tax ñi teere jur est-ce que kii napp la maanaam yaa fippu génn waaye kii napp napp na ba pare waaye ku fippu génn yaa xam moo tax nag kon jotaay bi tey barke bi yëpp mu ngi ci ron alaaji Keeba Caam parce que si ci min xasanaatihi ci barkeem la bu leen ci ray yorul woon wanu leen bëgg yëpp bëgg bàyyi boo leen ko gisatul fàtte leen da ko ormal bu muy dund naa xaritu paa bi la woon de xaritu paa bi sax la ñu wax duñ ne sëriñ taalibe sëriñ bi la woon waaye nag lu ñu soqat ci yéen la roose ko ci yéen ba kenn ku ci nekk mu ngi xëyari Cheikh Ibrahima Niass ca la bàyyi bëgg tey te amul kenn ku bokk ci yéen surtout président Ansaruddin li mu xidmal Cheikh Ibrahima Niass amul kenn ku bokk ci yéen te nekkul ne fu mu teew danañ ko waxal ci bàyyi parce que xam nañ pays xam tegginu pays bi mën a waxee pays bi kon nag yàlla na yàlla saxal loolu ci fan ñu ngi wax nag al xikmatu bi nga xamante ne lu tuuti laa ciy tënk rek ndax jotaay bi xikma alquran indi na ci lu bëri hadis indi na ci borom xam-xam yëpp wax nañ ci comme que loo xam ne ñëpp ko moom ñëpp a ciy wax waaye Seydina Ali dafa am wax ju wax ju am solo mu ne al xikmatu daalatul mu'min fa xusil xikmata

xekma boo ko déggee sagesse mooy li yàlla di wax ci alquran ci ay aaya ci suratu baqara wax na yutil xikmata man yashaau kon du liggéey koy maye du tàggat sa bopp lay may xikma mais yàlla moo lay tëbbu xikma moo tax ma ne ku jub da koy am ku juba dina koy am ku jub da koy am te xikma dañ koy jëlee ci ku dañ koy jëlee ci ku dañ koy jëlee ci ku gëm yàlla dañ koy jëlee ci ku gëmut yàlla kon xikma lu universel moo tax yàlla mu ne maa ko moom maa koy may ku ma nekk parce que yàlla amul xol ñun ñi am xol ñooy may baax ku baax waaye yàlla mi amul xol nag moo te moom xikma moom ñëpp la ko may moo tax xikma mën naa wax ne sax mooy insaan moom mooy nit képp koo xam ne dem nee nga je pense donc je suis nekk nga rek xikma moo nekk ci yow léegi da nga dox nag kutaat la yàlla mu ne ci alquran suratu baqara mu ne yuutil xikmata man yasha man maay jox xikma man sagesse ku ma neex wa man yuutil wa man yuutal xikmata faqad uutee xayran kasiran képp koo xam ne jox naa ko sagesse jox naa ko yiwu dul jeex wa maa yatazakkaru illa ulul albaab loolu nag amul kenn ku ci dégg nga ku ciy fàttaliku ku ciy am prise de conscience lu dul ñi nga xamante ne yàlla mayaat na leen foofu ubbeeku maanaam may na leen leer yàlla waxaat ci alquranul karim beneen aaya mu ne ci suuratu baqara rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wa yuallimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka anta azizul hakim dafa am ñu ñaan na yàlla ay yàlla yebalal ñu yonantu ci ñun yonantu gi bu ñëwee luñ koy doyee mu jàngal ñu sa téere bi jàngal ñu tamit dimbali ñu am xikma jox ñu ci xikmaam bi wayu zakihim zakihim boo déggee moom ñëpp d'accord nañu mooy mu tarbiya waaw taskiya moom mooy tarbiya waaw kon doomi aadama rek ci boppam ci dundam soxla na ku ko jàngal maanaam ku ko liiral suuf yi ni adduna bi di déroulé bëgg na ku ko ci jox ay dégg-dégg ay information loolu mooy mooy mooy kitaab wal xikmata mooy sages bi nga xamante ne moom nekk na ci moom te jàngul nekk na ci moom te du yonul nekk na ci moom te mënu leen firil benn téere mais xekk moom mu ci moom soxla nañ ci ñoom tamit wa wayu wa yuzakkihim ci boppam mooy mooy tarbiya kon ñett yi fekk nañ ko ci Cheikh Ibrahim Niass fekk nañ ci moom xam-xam bu ñu mën a liiral téere yi fekk nañ ci moom xikma te na ma ñu fekkee ci Cheikh Ibrahima Niass si xikma pour ma pour pour mooy xool leen El Hadj Ibrahima Niass fay doom bi dugal na ci euh, bëri na fu ko dugal xikma moo ko fa dugal. Mm. combe fii booy dem yoonu kaw Kaolack dem naa fa fekk fa séeréer yi sama mbokk ceeto yi jour boobu laa gis lu yéeme sama benn mbokk la dégg nga parce que ñu ne ceeto la mm. xam nga ku dégg Mignane Sarr man surtout Mignane Sarr la. Mm. amee suñu mbokk yëpp mën naa ne bi Ibrahima Niass leen def li ñu doon sama benn mbokk bu yàggu rek mu ne ma ñu toog mu ne dama lay ñaan xam naa ne wax ma lu bëri ba ci yàgg rek mu damm benn yàpp téye ko di jat jatam yooyu jat jatam yooyu jat jatam ci yàgg rek jat bi doon jàll mu sànni ko comme ni yonent yàlla Moussa defoon mm. yàpp bi jaan bi di dox bi ma wër ma dox rek ba ci yàgg mu ne ma téye ko teewuma ko nag parce que man ñëwuma jaan waaw jaan jaanu tele sax ñëwuma ko waaye jaan hmm. dama ko laal nii rek mu doon loolu xam-xam hmm. ba tey yàlla amul xol moo tax mu may ku ko neex hmm. moo tax bàyyi teel laa wax ne ñun du karaama la ñuy def pour gëm kenn du karaama la ñuy la ñuy xaar pour gëme nit kenn lañu ko wax moo tax li yëpp fekk nañu ci kaw suuf waaye xekk moom moo ñuy dimbali te xikma sax mën nga ko tuddee clairvoyance ah. mën na ko tubaab di wax. Mm, mm. waaw bu fekkee mën naa ko jox tur boobu. bi ñuy waxtaan mu ne ma bés bu fi Cheikh Ibrahima Niass ñëwee ñu bëri dañoo bañoon tuub mu ne sunu kilifa gi toog fi ne duñu tuub parce que nangam nangam nangam mu ne xikma la bàyyi utiliser. Oh, mooy bi paa bi waxee ne kenn du tuub parce que nit ñaa ngi ñëw ku ci dëkk séeréer yi bu ñu bindee bind bind bind ba pare tëpp ma dañ maa xeeb ci dëkk bi. waaw te maay mag buñ ma buñ ma bindu ñu ma buñ ma bindoon ci njëkk da ngeen ma ormal lu tax njëkkeewuñ ci mag ne na bi ñu ñëwee xulal lax sa boobu nga xam ne ginnaaw waxtu wi ñuy wax ne bàyyi buur bi bañ na coow li am na mais xulal xikma bi bàyyi xoolal sagesse bi ñëw ci saasi simultanément hmm. la bàyyi wax rek na ko déet man maay mag maay kilifa bi kon ndaw ñi war ñoo bind sa tur dañuy bàyyi ba kilifa gi ñëw bind sa tur. waaw nii la mën a demee loolu xikma la. bu dul woon xikma bàyyi mën na utiliser wilaya toog te billaay bu dalee ci kaw nga def ko yëpp. xoolal ci saa si. xoolal ci saa si simultanément direct direct bàyyi xalaatu sax ci diggante bi. daf ko bàyyi ba wax rek tontu bi ñëw. ne ko dégg ndaw doon ndaw lay ñëwoon di bind. kon mënu bind mag wala kilifa mooy ñëw bind kilifa waaye loolu xikma la bàyyi tontuwu ko jaayu ko dooleem jaayu ko wilaayatam gisul boppam xikmaam la utiliser simultanément rek xëcc wàcc bàyyi utiliser waat na xikmaam feneen mooy bi mu ñëwee gis pollu rajo comme ni ko sëriñ bi waxee léegi pollu yi bàyyi moo ko njëkk indi ci jàkka fii ci Afrique bii biñ ko takkee fii ci senegal sëriñ su bari kilifa yu bari borom xam-xam yu bari dañ ne indi na fi lu kenn xamul nan la ñuy jëlee yi nga xamante ne ay caaxaan nag rek lañ koy takk ñu indi ko suñu biir jàkka ji loolu xikma moo tax ko parce que fekkul ci téere yi wax ko mais xikma moo taxoon bàyyi indi ko fi ba pare ne leen lii jumtukaay kese la jumtukaay kese la ku nekk nag yàlla ngi lay àtte ci noo ko jëfandikoo rek loolu bàyyi utilisé wu naat na ma bi mu demee ci France kilifa gi fa tuubaloon te mu aroon ay auberge xaw ma hôtel mu ne ko sëriñ bi man nan laay def ak sama hôtel yi nga xamante ne ñuy njaaloo rek ñoo may luye ay néeg bàyyi na ko déedéet maandul yow néeg nga luye niweel néeg te maandul léegi ña dugg sa biir néeg ba di dem sa yoon ne yow daal néeg lañ la luye maandul yemal ci niwee néeg xam nga kooku bu amuloo xikma daf naan ko non il faut nga vérifier kañ lay vérifier ñaata nit ay dugg nga yàqal ko liggéeyam kañ lay vérifier ñi fi dugg ndax jëkkër ak jabaram lañ boo ne ko noo saree atawul loolu kañ dugal ko ci coow loo xam mais bàyyi daf ko compter ci saa si ne ko nekk ngay luyee luyee nekk loolu mooy xikma kon xikma léegoo-léeg mu atte loo xamante ne charia mënu ko atte xikma léegoo-léeg mu atte loo xamante ne sa maarifatu billah sax mënu la cee dimbali moo tax yonent yëpp amoon xikma moo tax xikma yàllaa ko moom moo tax yonent bi ne ne foo fekk xikma sa alal la yow mi gëm jëlal daf laa réeral Seydina Ali ne ne foo fekk xikma jël ko donte ci naafeq nga ko fekk donte ku jubadi nga ko fekk jëlal xikma bi nga jëriñoo ko tëddal moo tax nag yàlla waxoon ne ci beneen aaya ne am yaxsuduuna annaasa ala ma aataahum ala ma min fadlihi faqad aataynaa Ibrahima ala Ibrahima alkitaaba wal xikmata wa aataynaahu mulkan azima mu ne xanaa da bëgg a tere yàlla xéewalam bi nga xamante ne wala ngëneelam bi nga xamante ne wàcce na ko ci mbindeefam bi mu ne ñooñ Ibrahima kat joxoon naa leen téere bu ñuy tegtaloo maanaam fay waaye joxoon naa leen xikma boo xamante ne moom la ñuy attee moom la ñuy jubbantee c'est nga un toujours dafay un ci instance bu dangereux bu garaaw comme xam y a ci des oh. moo kon il rek a koy joxe waxtu bu jot day sens ci yow simultanément ça. ci yow brusquement da ngay ba nga ne sens pas la nekk mhm. du un du jaar ci philosophie jaar ci xel mhm. يوناني موي غريكي نيوم لي اتي وون حكمه ريسيرش بي ماي ديف تي سوبا نيوم داني واخ ني حكمه فيلوسوفي لا گم لوكو غريك ييب ني ديم با ات ني موجي سي نيوم ام ني نو نو حكمه دو فيلوسوفي باسكو فيلوسوفي تي خيل لاي تاخاو سا خيل بي جاي يوتيليزي دنگا تي حكمه نور الاله يالا لا كوي تيبو مو نيو مانام حكمه لوي خلاق سي خيل لا Euh, euh, euh, philosophie looy looy xool la philosophie commence par naa di ci mm-hmm. xool di ci jàngat di ci jàngat ba am lu mu la jàngal mm-hmm. mu ne waaye xekk ma nag doo xalaat dafa sut xel mm-hmm. ay am daat la ay tëbb yu jóge ci xadara yàlla bi ñëw ci mbindeef yi noonu la ko bàyyi tekkee nee na daal luy ci xadara yàlla bi wàcc da ngay dugg ci kër gi sax mun naa ànd ak yow ba a ànd ak yow bi nga toogee ñu soxla ko rek yàlla wàcc ko moo tax ñu ne xekk ma loolu yàlla koy may ku ko neex foo ko fekk jëlal moo tax ñu ne ñoom Ibrahima xekk ma la leen yàlla joxoon te ma ci boppam maam Ibrahima bañ ko jàppee indi ko mu daaneel xërëmu gaa yëpp ñu ne ko yow lu tax nga daaneel suñu yàlla yi mu ne waaye yéen naka ngeen di jëlee yàlla yoo xamante ni fa ngeen leen taaj fa lañ fa lañu ne léegi nag ñu ne ko indi ko ne ko yàlla yëpp daan fekk dafa daaneel yàlla yëpp bàyyi bi ci gën a ponkal boobu xikma la mhm. bëgg na leen yéey parce que ci xel rek lañ taxaw maam Ibrahima ne leen yàlla yëpp daanu na ngeen ne maa ko daaneel yéen kay bu leen sonn laaj leen yàlla ji nga xamante ne mu leen ëpp doole tewee koo semaine bi xam nga loolu xikma la que comme gëm ngeen ne yàlla la bi gën a ponkal kay boo leen ñee fekk mu daaneel boroo loolu xikma la utiliser woon pour gàtloo nga xam ne xikma léegoo léeg dangay dimbali njàng léegoo léeg am na fu njàng di ngàkk xikma da koy indi xikma dafay soulager doomu aadama yi léegoo léeg te xikma dañ koy wax muy sagesse am na ñoo xam ne xamuñ ko ci langue arabe xamuñ ko ci langue français waaye boo leen waxee ne olof njaay nee na lu ñu la ci wax rek xikma la kan mooy olof njaay ah suñu papa yi kan moo wax olof njaay fu mu dëkk ku ñu mën a wax ne olof njaay kii sëtu olof njaay ñun ba ñuy xale ba léegi dañuy dégg olof njaay nee na foo dégg ñu ne olof njaay nee na rek xikma lañ lay indi Pa Maxtar Sekk bu Mbooroo ñëpp koy déglu te lépp lu wax alquran la ak hadis te jàngul te mënuñu koo indi waaye lu wax rek boo réplié wax ci alquran mën nga fa fekk yàq bi boo demee ci xadis mën nga fekk yàq bi te amaan na mokkalool alquran wala mokkalul xadis yi waaye waxtu wu yëpp xamante ne jamono du ko changé alquran doon ko dindi xadis du ko dindi loolu mooy xekk ma ci gàttal moo tax nag kon soo demee ci arab yi boo déggee ñu ne nee na arab nee na wala mag nee na ma wala mag ñi nee nañ ma loolu yëpp yow mi xamul lan mooy sagesse ci baatu français yow nga xamul lan mooy alxikmatu ci baatu arab bu ñu nee olof njaay nee wala mag ñi nee nañ xamal ne xikma lañ la bëgg a wax lu ñëw la pour mu la sa dund moo tax beneen aaya alquran wax na ne udu ila sabili rabbika bil xikmati te yàlla waxul ne udu ila sabili rabbika bil ilmi wal maarifati ndax ilmu xikma la maarifa xikma la waaye li dajale lépp la ñuy jël mu gën a gaaw mm-hmm. parce que bu neew udu ila sabili rabbika dégg nga bil bil ilmi kon képp ku jàngul doo doon sëriñ te boo demee ci tasawuful islaam yi nee nañ ne ku jàngul dara mën naa doon sëriñ ba pare indi la ay adilla yu lay won ne nit mën naa ba jàng a xaala ba pare doon ajinata jama mën na mel boo demee ci tafos tasawuful islaam yi lay jàngal ay wulu yàlla yu mag comme ay Ibrahim Adham ay wulu yàlla yu bëri ci jamono Bastami dégg nga wulu yàlla yu bëri Ibn Arabi al-Hatimi seen maas bëri na ay ponkal yoo xamante ñoom woon nañ leen ci góor yàlla yi ñu doon jiite jamono lëpp di leen tegtal seen borom te sariya yàlla gii sax mënuñu la cee wax alquran mënuñu la cee wax nooy jàppee na ñuy miraasee nan la ñuy maanaam question yu yu yu xóot yi nekk ci islam yëpp mënuñ la ci tontu dara te ñoo doon sëriñu jamono kon bu yàlla waxuloon ci alquran ne uddu ila sabili rabbika bil hikmati wal mawidati hasana bu ko yàlla waxoon loon ci alquran ñëpp mën nañ taxaw ne ku jàngul mënut a doon sëriñ mm-hmm. waaye yàlla bi mu indee ci alquran ne bil hikmati rek nit ku jàng ku jàngul mën naa doon sëriñ kon aaya bi moo dàq ne waaye yow dafa jàng dara bay doon sëriñ déedéet ku jàngul tus mën naa doon sëriñ mm-hmm. ku mënta bind xaala war a kasiran arab benn arab mënoo ko bind xamoo dara ci français mun ngaa doon sëriñ yan sa jamono mm-hmm. à lan al xikma bil xikmati mm-hmm. moo tax xikma lu garaaw la wala jàng bëri xam-xam loolu te mënoo waar kenn yëpp te dégg parce que amoo jàng ulumul hadis dégg nga fiq nga naan ko toog ñëpp wane say diplôme ba mu jeex nga dëkk ci koñ bi ba génn dugaloo kenn ci diine amoo xikma nga doon taalibe bàyyi mënoo wax lu convaincre kenn ci wàllu yàlla amoo xikma am nga maarifatu mais amoo xikma nit mun naa am ilmu te du am xikma kon xikma yàllaa ko moom ku jub dana ko am ku jubadi dana ko am julit dana ko am yéefar dana ko am kon lu universel nga xam ne kon xikma yàllaa ko moom moo koy jox ci yërmandeem ba yàlla ne xool ba ma xoolee doomu aadama laa ko yërma laa ko yërëm yërmande googu mooy bi mu ko joxee alxikma mooy rahmaniyatul ilahi ah yaana yaani alxikma est-ce que comprendre ngeen li boobu kon xikma ñëpp ko moom moo tax yàlla ba mu ne udu ila sabili rabbika na ngeen oote ci seen yoonu borom bil xikmati kon ubbi na buntu yëpp waaye politique bii nag sax ñi ci am xikma soo moytul ñoo ci gën a mën a def résultat ci ñi nga xamante ne ci njàng rek lañ jàng. Mm-hmm. xam nga mën ngaa dem France dem ba Amérique jàng science politique dégg ñëw doo def dara sa kàrte xeet ñëpp mënoo dajale juróom minute sa koñ mënoo def benn discours bu dëkk bi bu foo defee discours gars yi de <laughs> xanaa deful kii. non pourtant diplômé la de. Mm-hmm. ci école yi gën a garaaw ci adduna bi lañ ko formé mais mënut a def mënut a wax wax ju jub parce que amul xekma amul sagesse te nit mën naa am sagesse foo ko dugal mu dem moo tax yàlla mu ne dégg nga euh, euh, yonent bi sax wax na ko na nga toog na nga laaj borom xam-xam yi ñoom teg si nga seqal ñoom ñu jox la nee na nga fréquenté borom nga toog ak mag ñi borom sagesse yi mais borom texte yi moom laaj leen rek ñu jox la texte nga romb leen mën nga leen ko gën a dégg kon nag borom xikma dañ koy fréquenté bu ko jox sa bopp non non gën a <laughs> gis nga billaay yàlla ak yonent bi du ñu ay xale de luñ la wax jamono mënu ko randal mais lan moo tax bi ne leen borom xikma fréquenté ko parce que mën naa bañ a doon jullit kon bu ko jox sa bopp mu ne mag ñi nag jox leen seen bopp mooy mag ñi mooy ñiy tuddee ci xadara yàlla bi te kooku mënut a doon lu ko jullit moo mu ne mag ñi jox leen sa mais borom xikma yi fréquenté leen. Mhm. pourtant mën nga fréquenté yéefar yéefar yéefar mën na la fréquenté mun ngaa fréquenté juif juif mën la fréquenté mën ngaa fréquenté ku nekk jël ci moom quelque xam-xam mhm. parce que xikmaam da nga ko soxla. moom laa doon wax benn waay benn jour ma ne ko ñun soxla nañ li tubaab xam mais soxla la soxlawuñ li tubaab doon. Mhm. waaye soxla nañ li tubaab xam. waaye soxlawuñ li tubaab nit ñi nag dañuy dem. au lieu ñu jàngi jël li tubaab bi xam mais dañuy wëlbatikuwaat jëlaat li mu doon bu ñëwee ci suñu dëkk yi ñàkk li mu xam ba pare jox ñu li mu doon xam na comprendre nga li mu hmm. moo tax kon aaya bi daf lay tegtal ne njiit kenn moomu ko ku yàlla jox xikma rek war ngaa mën a jiite hmm. moo tax yàlla mu ne euh, wal maw'izatul hasana hmm. ngay waar nit ñi waar wu leer naññ wu rafet bu mën a méngoog ñëpp loolu xikma moo koy joxe wa jaadilhum billati dégg nga xëy ahsana na nga jëflante ñoom sa la gën a rafet loolu xikma moo la koy jox mooy li bàyyi doon def yonent yàlla Muhammad def na ko waaraate na ne yéen yow boo dee xamadoo dugg ajal li mu waxoon euh, euh, euh, maire bi mu jaaxle mu ne ko déet yow booy dugg ajjana léegi ëllëg mu ne naw ñooy dugg ajjana ba xam na la mujjee màgge bi dugg ajjana ndaw si am lu dul dëgg ñaareel bi si sama bakkan waaye li ko may simultanément mu mu xaatir yedd boppam xikmaam la xikmaam loolu mooy al xikma moo tax bu ko firee bu ma yàlla mayee tam ci sa dinaa leen woon xekk ma ci sa bopp ak ma ci nit ñi sa bopp bi nga yëgee sa bopp loolu xikma loolu nusuus yaa ngi fi kon Seydina Ali ci boppam moo tax commissaire police boobu du ko soxla si jàmm ñu jox ko ne ko ko bu ànd ak jàmm jooju segay ko jox moomu ko bu it moom ci territoire bi mooy bu gaalam foofu mu gàcce euh, dëkk pënam pënam bi waa ji di wax mu pot ko kon xikma rek mën a boobu wala ko di mën a xamee su ko xekk ma ab yiw rek xam ci boobu yëpp yàlla ci sa bopp kon nga dogal ko moo tax mu ne kon wa huwa a'lamu bi man dalla an sabili wa huwa a'lamu bi man xalisi yàlla waxaat tamit beneen mbir mu ne waskurna maa yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikmati inna allaha kaana latifan xabira kër yi maanaam li ngeen di sax xikma tey la kilifa di ilifee këram maanaam naka ngay jëflanteeg say doom te bokkuñ wërsëg loolu xikma mooy dimbali borom kër naka ngay jëflanteeg say doom ba ñëpp yem ne yëg ne yem nga yemale nga leen. loolu xikma moo koy def. te bokk te te ñoom ñëpp bokkuñu respecté la waaye yaa leen jur naka ngay euh, utiliser dégg nga sa pouvoir bi ba Sénégal yëpp yëg ne ah président ñëpp la uuf ah suñu directeur général bi ñëpp la yemale. ba ci kay fomp oto yi sa buntu ko yëg na ne moom nangam. ah suñu yaay doom doom yi baaxuñ am nañu baax mais yaay ji de mënoo xam ne kan la doom yi gër gër ci moom loolu yëpp nag. bu la sa diine rëccee xekk ma mooy des pour delloo si la nga mën a yemal moo tax nag kon nga gis ne yàlla wax na ne dee leen fàttalikul aaya yàlla yi leen di wàcce ci biir dëkk bi ci biir kër gi ndax mu yar famille bi yéen ñëpp a ci yar fante ay julit leen waaye bu fekkee ne kër gi du ñu kër julit nag waa ji xekk ma lay jëfandikoo pour mën a apaiser pour mën a yar kër gi du du julit du kër julit rek a baax boo demee Japon dama liir benn benn teg ci fan bi waa ji di woon ne mu ne xool leen chinois yeeg japonais mu ne pourtant de amuñu diine amuñu tariqa te kenn te kenn gënu leen a yar seen peuple waa ji ko bindee ci publication bi ma ne kon ñoom xikmatul la ñu utiliser moo tax ñu mën a yar seen peuple comme amuñu tariqa amuñu yonent amuñu amuñu amuñu amuñu diine maanaam amuñu yeneen amuñ tariqa amuñ sëriñ mais ñoom ñëpp yar nañ seen peuple ba raw adduna bi ba ñëpp nangul leen waa ji dafa publier loolu man ma commenté ci biir publication bi ma ne leen xekk ma mhm. lañ utiliser moo tax Japon ak Chine tollu fi tey waa ji jël sama numéro mel lu tax nga ne xikma ci laa ko leeral lu bëri ne ko ma ñëpp ko moom yàlla ne ne yottil xikma dama ñesaa mhm. kon nag bu fekkee ne xikma lu xam-xam bu universel la kon fu mbax nek rek hikma moko fa wàcce xam nga ne dégg nañ dama bu bëgg a moo tax nag ñu wax ne al hikmatu hiya al fahmu wal idrak fi umur charia mu ne bu ñep yene ci sharia ñi raw moy borom xikma yi moo tax nag kon borom xikma da ngay dégg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne man amila bima alima warasahu allah ilma ma lam yaalam yonent yàlla Muhammad nee na képp ku jëfee li mu xam dinañ ko donn donnal dinañ ko donnaloo xam-xam boo xamante ne dégg nga jàng ko wala xamu ko woon ñu ne loolu mooy alxikma ndax xikma ko moo lay may nga jëfee li nga xam boo amul xikma mën ngaa am xam-xam mais doo mën a jëfee li nga xam xikma moo lay may nga jëfee li nga xam yonent bi nag nee na képp ku jëfee li nga xam danañ ko jox lu mu xam ko woon ñu ne alxikmatu min al ilmi ñu ne xikma sagesse ci biir xam-xam la bokk ci ilmu la bokk wal xakimu aalimu ñu ne xakim bi moom mooy aalim bi moo tax nga gis ne aalim bi ci boppam borom euh, borom xikma bi dañu wax ne moom mooy ki nga xamante ne lu ne rek da koy teg ci place kon nag yàlla ñu yàlla dimbali bëgguma guddal jotaay bi ndax jotaay bi liñ ci bëggoon yëpp am nañ ko bëri na lu ma jëloon ci waxtaan ci ci xekk ma ba ci suñu sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahima Niass comme que moom laa tijjee alam bi adduna bi yëpp xekk ma xam ne woon nañ benn sëriñ bi mun na ma ci yokkal lu bëri ndax bàyyi ak maaw ñëpp xamoon nañ ne 30 ans maaw dafa tëjoon réew mi soxlawul journal soxlawul adduna mm. ne day tabax réew lu góor ci bàyyi ban relation la amoon ak Cheikh Ibrahima Niass Oustaz Ibrahima Diop nee na ma Maodo daf ne biñ ko laajee ne ko relation ak Baye li ko yem ci Baye mooy dafa am dégg mais dafa dégg àdduna dégg boobu Baye déggoon àdduna kon xikma bi Baye amoon moo doon relation képp koo xamante woon duhut woon julit wala duhut woon suufi du nitu tariqa mhm. xekk ma Alaaji Ibrahima Niass moo doon sa moo doon moo doon moo doon sa relation xoolal moo ni mu yem xoolal année bi Cheikh Ibrahima Niass di dem bi muy nekk Chine di wër di wër pexe yooyu boobu mooy premier euh, euh, euh, ministre seetal ko ci internet bu français bu ñu yónni woon pour mu découvrir Chine boobu bàyyi jiitu na leen fa kon kan la Alaaji Ibrahima France bi nga xamante ne takk nañ suñu lépp jox ko bëri na ñoo xamante ne soxla woon nañ bàyyi bi muy dund te soxla wu woon France mm-hmm. ak seen ak Napoléon kasa kasa mm-hmm. ak lañu am yëpp mm-hmm. ñun ñu fi toog naan waa France lu ñu def ñu France lu ñu def ñu ne France am nañ benn doomu Saloum Saloum boo xam ci àll ba la dëkk am na adduna bu ko doon soxla te soxlaa bu ñu woon France waaw waaw am nay jamono bi bàyyi di dund Senghor di dund am na réew yoo xamante ne sénégalais bi ñu soxla woon mooy Cheikh Ibrahima Niass soxlaa woon président Sénégal. sénégalais bi ñu soxla woon mooy Cheikh Ibrahima Niass soxlaa bu ñu écrivain sénégalais yi te pourtant xamoon nañ leen daan nañ leen gis. mais bu jaaxle woon El Hadj Ibrahima Niass la ñuy oo laaj ko ci xikma même Nigéria guerre bi nga xamante ne ci jamono moo ëppoon ñu dee muy 15000 morts. Cheikh la dajale woon syndicaliste yi ak ñi nekkoon ci nguur gi. ak borom xam-xam yi ci xekmaam la leen tëralee woon benn dustuur benn texte boo xamante ne si lañ sukkandekoo gum ba tëral seen constitution yi ñoom waa Nigéria mm-hmm. loolu ci xekmaam la parce que ñëwul di leen jox ay ay alxuraan ñëw te boo bàyyi ñëwul woon di leen jox ay ay selon diw selon diw selon diw parce que bàyyi jamono boobu jàngul woon dégg nga <coughs> science politique yooyu ñoom ñu jàngoon ak ak ay ak stratégie yi ñu seen réew yi bàyyi génnul woon ci école yooyu mm-hmm. kon bàyyi ci xekmaam Mhm. moom la leen tëggaloon benn texte ñu téye gum ko ba guerre bi jeex téye ko ba mën a ànd téye ko ba mën a tëral constitution mhm. mu Nigéria bi tey mhm. ci xikma Alaaji Ibrahima Niass dégg nga si la doon jëflante sunu maam yi nga xamante ne dégg nga ñoo nekkoon ay ay ay jiloor ak ci biir àll bi ceddo yooyu ndax sa maam nett la ñëw dégg nga dégg nga Euh, sama malim nettali na ma ne ma ne ma moom ba maam ni ñaan daan ànd ak bàyyi di dem jiroon ci biir àll mu ne toog nañ teg benn feuille benn feuille nga xamante ne moom buur la ci woon ci ñoom moom moom chaise bi mu moom taalibe Cheikh Ibrahima Niass mu ñëw ànd ak bàyyi jox bàyyi chaise bi toog ci suuf nee na saltige yu bëri mer kilifa yu bëri mer ne kii daf ñëw bëgg a yàqu ànd ak sëriñam bi xaw ma lanam la indi ko fii suñu chaise bu sacré bi moom fii toog ñun ñëpp ñu toog bu ci mënul ta toog am ñoo xam ne dañoo seen jotaay bi départ ne kii du toog si kenn seen moom bu ñàkkee fay da jox ko ci kaw nangam nangam nee na am ñu wax ba bàyyi dégg maam Alioune mu ne maam Mignane mer ba xamul lu muy def mu mer bëgg a jëfandikoo gars yi bàyyi ne ko déglu mu déglu mu ne bàyyi ne ko téyal mu téy mu ne ko bul fàtte ne ca biir mbokk nga ne benn bul fàtte ne ci ñëw ilif nga ñëw dégg mu ne te ku indi fi day yërmande mu ne ko ba pare mu ne ko xanaa ko moom picc boobu sax déggoo li mu wax picc bi sax dem nee na ci la ko bàyyi firi lan picc bi wax. ci xalka na ñoom. loolu du xikma. bàyyi pourtant mënoon leen a xalaat ci saa si. waaye histoire da koy nettali. Mhm. te Cheikh Tidiane nee na mooy ëpp ñëpp yërmande. Mhm. te kenn du teg. baaraam ci loxo ne Alaaji Ibrahima Niass mës naa fut li ci kaw suuf. allahu akbar kon bàyyi bu ko rey kenn ñu naan bés ba ko ñuy defee nii nii la leen defoon taal dëkk ba nangam nangam nangam. loolu kon xëkk ma sax ci boppam dana tax dana garder sa wilaayatu. Mhm. mu ne picc bi li mu waxoon mooy xalkande gi nga xamante ne ceddo yooyu ko mayoon ñi ñi dépassé woon Alaaji Ibrahima Niass ci jotaay bi loolu la picc wax ne ñooñu yàlla def na ci ñoom bëggal def nga gis ne xëkk ci boppam. mayoon na Cheikh Ibrahima si relation yi mu amoon ak Serigne si Touba ba mu teg xikma moo taxoon mu am fa jabar xikma moo ko mayoon mu jaxasoo ak moom Serigne Fallou photom bi mu foto ak Baye Baye ko demandé hmm. Baye bokk ko demandé Oustaz Ibrahima Diop nee na photo boobu fekkee na ko nee na Serigne xam nga lan la wax jaru ba koy wax sax ñu ngi caméra jaru ba koy wax mu ne foto boobu bàyyi demandé na ko ñu photo ko waaye foto boobu jubale na ñu bëri ci àdduna bi tey loolu xekk ma la ndax tey ñu bëri na damaa bëgg Baye Niass ndax foto bi mu photo ak sëñ Fallou ñëpp bëgg nañ Cheikh Ibrahima Niass ndax photo boobu mu lëng sëñ Fallou ànd ak moom beneen xekk ma feeñ na bi bàyyi ak président xaw ma général Tito xaw ma seen photo boobu ñu taxaw Baye moo ko demandé te faale ko xam nga ne Baye faale wu yàlla bind ci kaw na waajaa ngi tàngal bàyyi di seddal waajaa ngi tàngal bàyyi di seddal ndax xikma ba ci yàgg bàyyi lënk ko ne ko kaa ñu photo wu mu ne li tax foto boobu tey ëllëg ay kilifa suñu bokkul déggin juboowuñu waaye bokk bi ñuy bokk foto ëllëg dana may jàmm suñu peuple bi ñëw suñu ginnaaw ak lu mën a dox suñu diggante rek photo boobu takkee na murit yu bëri ak taalibe baay yu bëri kon loolu xikma la léegoo rek sa wilaaya da nga koy teg fële léegoo rek sa xam-xam da nga koy teg fële léegoo rek say daraja da nga koy teg fële indi sa xikma moo tax yàlla mi xam xikma jox ko adduna bi ba mu bet xam na ne al xikmatu xikma rek moo mën a indi jàmm ci kaw na fu jàmm të fu jàmm yenduwul xaakima fa nekk ko waaye fekk fu xakim nekk dégg nga faw jàmm fanaan fa fu musiba fanaan xakim moo fa nekkul fu réew tasaaroo xakim moo fa nekkul kon alxikmatu mën naa wax ne moom mooy dégg nga yërmande yàlla ci kaw suuf moo tax kon Cheikh Ibrahima Niass daan na utiliser xikmaam ci loolu ba réewu arab yi sax daan nañu wax rajaaxatoom bi ñu doon wax naan bàyyi dafa am rajaaxa dégg nga aqliya rajaaxa boo ko déggee borom ma la woon xikma moo feeñoon ci moom ba lu xew rek ba xam-xam ñëpp tolloo ba téere atte ba pare dañ naan lu Alaaji Ibrahima Niass wax bu ñëwee atte rek ñu ne loolu la waa ji dafa ñëw ci moom ne Baye Niass loolu ba tey ci xikma la ko tontu mhm. ne ko jigéen ni mu neexee dégg nga daf ne ko euh, lan moo tax ñu tere leen sàngara te ngeen di lekk te ngeen di lekk rese mhm. Baye wax ko tamit moom jigéen voilà loolu wax na ko ci jigéen may def ko nekk yéen. ah boo demee nga nuyu ma soxna seeg njaboot gi. mu ne ko ñun duñ takk soxna. parce que yàlla tër na neex. xam nga loolu nuyul ma soxna sa rek mooy xikma bi loolu laa demal nga nuyul ma soxna sa. dégg nga mu ne ñun takk ñun duñ takk soxna. demal nga nuyul ma soxna si rek. loolu xikma bu garaaw bu ci bàyyi wax bëgguma guddal. bàyyi xikmaam feeñ na ci araab bi bi ko waa ji waxee ne ko. bi bi muy bi muy wax ne. ñun du ñu utiliser lu yonent bi utiliser wu woon xam nga bàyyi ma ngaa indi ay xadis yu dul jeex ak aaya mm-hmm. réception bi dafa jóg rek bàyyi nuyu ko ne ko loo bi ngay ñëw mm-hmm. loolu ñëwee mm-hmm. lan nga bi nga war a mën a avion nu ko yonent la daan wax loolu ma la leer yonent bi gileem la daan wax te ñoom ñi wax sunna li taxaw nag fii lu fi yonent bi def loolu duñ ko rek xalaatu ñoo yéeg gileem xalaatu ñoo yéeg fas te yonent yàlla Muhammad musul yéeg avion musul utilise téléphone musul nangam musul nangam nga gis ne bëri na ci xikmay Cheikh Ibrahima Niass xammee nañ ko ci kawnu bi bi ñu demee ba keer lépp ne teg benn place bàyyi dafa tam indi xikma bi guerre Israël di amee ak ak ak Jamal Abdou Nasser borom xam-xam yëpp noppi kenn waxu ci bàyyi Niass moo bind Jamal Abdou Nasser lettre ne ko yaa fi yonent bi loolu xikma la xam nga moom ku dul ku dul Cheikh si kaw bi jamono boobu doo yonante bi hmm. ndax wiraasa Mouhamed yi nekkul si Jamal Abdou Nasser mais bàyyi dafa utilisé xikma hmm. bind lettre Jamal Abdou Nasser ne ko yow yaa fi yonante bi ci kaw suuf jullit ñëpp a ngi saro hmm. ñun nag amuñ arme buñ la jox waaye sunu kurus yi lañ lay ñaanal fexeel ba suuf sii moom bu ci rëkkil Jamal Abdou Nasser ci boppam bi gaa yi bi bi xikma la la bàyyi utilisé mais Jamal Abdou Nasser tamit utilisé na xikma بشيف دا جيري جنرال يكتري لي سين سين سين سين سين سين خارنتيف با بار موم لا اندي يما عبد الناصر دا فا جيل غاي ني لين خامو دانيو ديف نانيو انستالل ما دك بي ال بي اي كيرو كارتون اي لام خام نان بري وون ارم تي اسرائيل دي نان بومبار دي تول دك بي ني جيل قاهره دك ني خام كوي ني كوبي لين كوران دك بي ييب ييب كوبي كوران دك بي با ay ay ay ay këru carton fële ci àll ba taal ñu installé ko courant dëkk bi bu guddee bu Israël jógee rek bombardé rek dafa àll kerte rek la ñuy bombardé buñ bombardé ba fajar bu ñu gis ne dara yàqul kër te waxtu woowu pourtant chef de guerre yëpp tëral nañ seen charte ba pare mm-hmm. moom mu indi xikma mm-hmm. nga gis ne lii buñ ko toppee du jeex mm-hmm. ba ci nit ki nan lay def ba am jàmm ci këram xikma la nooy def ba jubóog sa waa dëkk te bokkoo li ngeen gëm xikma la bëri na ci lu ci Cheikh Ibrahima Niass def ba bii arab yi sax dañ ko doon tuddee moom Cheikh Ibrahima Niass mu fakkirul islam yi bi ñu doon tuddee Cheikh Ibrahima mu fakkirul islam yi dégg nga xalaatkatu islam bi bu islam dajee rek ñu boobu bàyyi ne lu mu xalaat parce que téere yi ñoom rawuñ ci waaye lu mu xalaat boobu xekk may Cheikh Ibrahima Niass dégg nga moo taxoon ñu ko doon tuddee ci jamono ah, mu fakkirul islam yi subulu salaam sa euh, euh, euh, fi ibqaabil maqaam bi bàyyi doon wax pour ma tëj mooy bi ñëwee ne dañuy randal maqaama Ibrahim bàyyi gis na leen bàyyi leen ko place ci xam-xam ci wilaayam war na ko dem na def fa conférence pour ñu bàyyi maqaama Ibrahim mu jàkkaarloo bunt bi ñu ne noonoo dafa xat léegi buuxante mën na fee am bàyyi ne bàyyi leen ko mooy jàmmi islam bi jàmmi jullit mm. ñu weddi ko ci li wax mais bàyyi xekma bi mu joxe woon am na ci waaye wilaayam tegee téye na ko fa xikma bi ñu joxoon mooy lan mooy bàyyi dafa xam ne bu fekkee ne may nañ màkk gii luñ bëgg a toxal toxal ko dinañ dinañ dem ba toxal loo xamante ne waroon ko toxal dinañ xëy rek benn buur ñëw rek ne toxaleen leen ma kaaba gi sama sama koñ wala sama quartier mm. wala sama ville wala benn gouverneur bu am doole ñëw rek ne toxal leen ma kaaba quartier parce que recette yi dem fële mais war nañ ko toxal gis nga xikmay alaaji ibrahima mm. bu leen mayoon ñoom ñu toxal maqaama ibrahim muy laa yooyu ñu doxal ci benn danañ doxal ba doxalal jullit yi loo xamante ne ëllëg mën na indi lu rëy ci àdduna bi bàyyi ne leen ko doxal indi xam-xamam ñu bëgg ko dindi ci wilaayatoom ñu gas gas gas gas gas maqaam ak Ibrahima ba mu xóot ñu lonk seen chaîne yi bëgg a déplacé rek gis ne maqaam ak Ibrahima kaaba gi yëngatu ñëpp di ñu gas ba ci suuf gis ne ay chaîne yu ko takkee dinaa ko kaaba gi maqaam ak Ibrahima loolu moom wilaayatoom la kenn xamul lu motax nak kon hikma bu lako yàlla maye mayna lay la yow jeex ci gàttal loolu la mënoon génne di lay wax ne allahuma awsatna alqurana wal xikmata fi kulli ahwalin wa zamani yàlla ñu yàlla wërsëgal alquran parce que mënul ànd ak ñun mooy leer برهام باء وراء ألف ثم هاء